jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak projet def dara tabaarakallaahu ñoo ngi ci centre euh, international bu ab Abdou juuf ci jam euh, ñaajo di jéem a jàngale ak misaal mel ndaje moo xam ne am na diggante xale yi ak nun ndaje mi ñu tuddee ko benn séminaire toll ci séminaire bi ci wàllu tànn tànn ñi nga xam ne ñoom lañu bëgg a sant li nu soxla ci pinc mi ñu waxoon ci bind yi weesu ne tànn dafa am solo alayhi salaatu wasalaam wane na ko alquran wane ko waneeti ko alxuraan wone ko waneeti ko wane ko ci Muusa alayhi salaam waaye wane ko ci Maryama waaye te ba tey ci principe bu tànn googu alxuraan dañul ba tey di ko def moo di sunu borom daa wax ci alxuraanul karim ci suratu Ali Imran inna la astafa aadama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin loolu tam tànn la borom subhanahu wa taala moo wax ne dafa tànn aadama tànn noox dafa tànn aadama tànn noox yàlla bi mu ñëwee kër aadama dafa fekk kenn fa baax muy aadama mu tànn ko jënd si ñëpp mu bàyyi leen fa waaye ba mu ñëwee kër noox nit kenn na fa baax muy noox noox jabar ja baaxut doom ja baaxut suñu borom ne leen fu ñukk tànn ko moom dong kon gis nga principe bu tànn bu ñëwee sentiment day dàqu moo tax yàlla doxalul foofu senti sentiment mu tànn aadama ca këram tànn nooxun ca këram waaye bu ñëwee ci ali ibrahima ñépp la tànn ñëpp la tànn ali ibrahima la wax imran it ñëppam la tànn imran ñëppam la tànn alal aalamina kon tànn mu moo tax bi nu tollee ci eh, séminaire bi ba gaa indi seen atelier yi wax ñu ci liñ ñu war liñ ñu wax lépp kon war nañoo tànn ñi nga xam ne ñoo koy taxawe au ñu naan diw ak diw ak diw sallallahu alayhi wa sallam moom it ci njàngaleem wan nañu ne moom ci boppam dañ koo tànn mu ne inna lastafa kinaana min waladi ismail wastafa quraysan min kinaana wastafa min qurayshin bani asim wastafa nii min bani asim allahu akbar sallallahu alayhi wa yàlla daa fekk ci arab yi giir yaa ngi bare bare bari mu fekk ci giir gu tudd kinaana mu tànn leen mu tànn leen kinaana moomu nag ñi ngi bokk ci doomi ismail alayhi salaam nee mu fekk kinaana moomu nag mu tànn Quraysh ci seen biir mu tànn xuraysh seen biir xuraysh moomu mu tànn banni Hachim ci seen biir mu ne moom nag mu tànne ko ci biir banni Hachim allahu akbar waaw mu ne moom mu tànne ko ci biir banni Hachim comme tànneef la bu génn ci biir tànneef jóge ci biir tànneef waaw moo tax tànn am solo mbokk yi bu ngeen dégloo baax a baax da ngeen di gis nekkoon tànn munta ñàkk lu ko mooy nga defloo nit lu munta def walla mu jëngu bëgg koo def wala mu koy defe nu dul noonu bëriwaana yu dox ci pénc mi léeg-léeg looloo koy waral association la daayira la parti la tànn jot ñu bëgg a defloo nit ñu gis ne kii ancien la ci parti bi waaye li ñuy def lu mënu ko ñu bëgg ko jox ndaxte moo fi yàgg te loolu moo mer la woon iblis ba mu gedd waaw dem taxaw fële te yàlla moom du fekk li muy def lu ku ko man mu koy def loo ku ko mënut mukk yàlla day tànn ki mën a def defloo ko waaye du fekk loo xam ne diw da koo man diwa ko ko dàq ñu bàyyi ki ko dàq di ko defloo ci ko man loolu ci penc mi na ci xale yi bàyyi xel rawatina séminariste yi ñu nangu tànn borom bi subhanahu wa bi muy tànn bi yonent bi di tànn euh, Sidna Ali ca Xaybar ñaata nit ñoo ko wóoroon ñaata nit ñoo ko wóoroon waaye li muy defloo Seydina Ali ca xaybar mbooloo mi ku ko fi dàq amu fi donte nit ñi mën nañ ko waaye kan moo ko ko fa dàq Seydina Ali moo ko fa dàq moo ko ko fa dàq mu daal koy tànn sunu borom son wa kon bi muy tànn Moussa noonu la kon penc mi parti politique yi association yi daayira yi lu ci nekk ci ko man nañ ko ko jox waaye duñu wax ne diwa fi gën a yàgg diw mën na fee gën a yàgg ba noppi waaye li ñuy def lu nii mënu ko te itam su fekkee ak pal moo tax mu ñëw léeg-léeg soo falee keneen te ko mu opposé ko di téq ay tànkam rek ba mbooloo ma xëy yàqu fu mu toog di wax dana fa wax loo xam ne dana yàq derub kii bu ko kenn digloo mbaa rek bunt la di ubbeeku ñoo ko moom ñoo ko moom ba baa ñuy folli ki ko fi dàq fal ki ko man mbaa ki ko tële mu daal di yàqu mu daal di yàqu moo tax foo fekk parti boo xam ne duñ dem congrès loolu moo leen di dal parti boo dee xam duñ dem congrès wala buñ demee congrès du am débat loolu moo leen di dal kon mbokk yi tànn nga noonu euh, tabaarakallahu léegi nag mbooloo mi ñëw nañ dafa am yoo xam ne ci ñim nekk lañuy tànn duñ wax nañ tànn diw ak diw ak diw déedéet dañuy seet rek yi ñuy bëgg a jàngale ci kum nekk ñu tànn la waaw nit koo xam ne ku ko waajal ci indibaat yi mu dem nit koo xam ne ku ko waajal ci ibdaa yi mu dem nit koo xam ne ku ko waajal ci jihaad yi mu dem yooyu mbokk yi mooy yi nga xam ne mooy nekk ci ndaw yi ñuy tànn ñu mën leen a tànn ndax expérience yeeg force yeeg doole yi yemuñu tolloowuñu kii am na lu man kee am na lu man kii am na lu ko dàq ba dema ca terrain ba fekk fa ñoom Sadio Mané ñuy fubal waaw entraîneur bi mooy xam latéraux yi ñan la war a doon milieu de terrain attaquant yi nangam nangam ba ca góor ku ci nekk dañ lay tànn ci jàpp ne poste bañ lay teg mën nga caa nekk loolu mooy tànn loolu mooy tànn am na yoo xam ne yu baree baree bari la mbokk yoo xam ne mi ngi ci pénc mi nit ñi yor ko suñ leen ko defloo woon fi ne ñun suñu ndawi réew ndawi réew maanaam Sénégal ndaw yi ne ci pénc mi daanaka man nga ne àdduna si ñoo ci gën a yeewu ay ndaw kaar-kaar gën cee sawar ay ndaw buñ leen nelawloowut am na yu bare bare bari yoo xam ne ndaw yi mën nañu ko waaye léeg-léeg duñ leen ko buñ leen ko def loowut duñ ko mën a def waaw ndaw yooyu mbokk yi lañu bëgg ñu xool ñett yi nga xam ne moom la ñu lim léegi koo ci xam ne buñ la waajalee ci loolu nga mën a dem ndaw yépp bàyyi xel ci ne kon man dana déglu jataay bi xool yooyu nga xam ni ci lañu bëgg a tànn ndaw ñi ñu jéem cee taxaw pour man ko ba ci jiitu ci mbokk yi ci mbokk yi ci yooyu mooy ñu waajal ndaw ñi ci al indibaat yi indibaat yi mooy melo yi gën a kawe ci ñetti melo yi ma waxoon sànq te ndaw yi war cee ndaw yi war cee taxaw pour ñu mën leen a tànn waaw ñu mën leen a tànn mooy euh, lu jëm ci wàllu soppi pénc mi bu indibaat yi amut du sotti lan mooy indibaat yi mooy ndaw loo xam ne buñ na ko defal mu def buñ na ko bàyyil mu bàyyi mooy ndaw lu dégg ndigal ndaw lu dégg ndigal gis nga sunu mag yi réew mi yàlla na yàlla fayal ñu leen réussir nañu ci wàll googu lu am solo mooy fexe ba taalibe dégg ndigalu sëriñam léegi sax ci vingtième siècle wala jamono yi le politicien yi xam ne dégg ndigal arrangé wu leen ñoom ñëpp am na nag ñoom ci arrangé waaye am na ñooñu arrangé wu leen ba tax na ñoom dañuy fexe ba taalibe bi wàññi ñu dégg ndigalam daal di koy doxal ci logique te taalibe bu gëm logique léeg-léeg mu yàq suñ ndigal kon ndaw li nga xam ne dafa bëgg ñu tànn ko li muy njëkk def mooy nangoo topp ndigal jóg leen ñu jóg toog leen ñu toog dem leen ñu dem wax leen ñu wax noppi leen ñu noppi gis nga bu la yàlla yóbboo màkka ba nga gis ujaaju asiatique yi dafa naan lu ñu ko wax professeur chinois yeeg japonais yi seen ustaas yi ustaas yi afrique yi dañ leen di ñee rawatina ustaas yi sénégal yi ndax ñooñu seen ustaas yi bu ñu ñëwee seen ujaaj yi dañuy def indibaat yi mooy loo wax ujaaj bi loolu lay def ñun nag suñuy ujaaj da ngay wax ujaaj bi nàngam mu bëgg laa wan li ngay wax ni jàng na ko walla dégg na ko mbaa xam na ko wala wala walla wala werante yi tàmbali am sa diggante ak ujaaj yi doo def luñ xam ñoom it duñ def luñ xam ala kulli xaal tomb bu njëkk baa ngi noonu ci ndaw li bëgguñu ñu tànn ko na am lu ñu tuddee indibaat yi su ko amut mu doon ku ca neex waajal ñu waajal ko ca ba mu mën caa bokk ca ñooñee gis nga force yi ñu am xalaat yi ñu am physique yi ñu am li feeg teguñ ko ci kaw topp ndigal ñu jëf la ñu ñu jëfe ko ni ñu ko war a jëfe day tasaaroo ci mbedd mi rek waaw fu nekk aw saan jëm fa bu ñaar bi muy ibdaa yi ibdaay mooy ñu ñu tànn ndaw yoo xam ne ay créa ay créateur lañu defe naa lañ ko waxee ay créateur lañu ndaw lu mën a xalaat lu samp dara maanaam ndaw lu mën a xalaat lu jural ndaw ñi métier walla am-am waaw te ndaw mu bañ a doon ndaw luy wéeru ci baayam rek ak yaayam baay may ma nàngam yaay may ma nàngam déedéet ndaw li day doon koo xam ne kii euh, day posé candidat wu fas yéene bokk ñi ñuy tànn waaye mu doon koo xam ne kii dana mën a def ibda ibda mooy nit koo xam ne kii am na defal sam réew defe naa ni suñ ci suñ ci limoon tey lu mel ni kii sponsorise sama émission bi ci fajar gi muy C3S C3S ndaw loo xam ne xalaat na ba créer barab bopp daf jaay ay aluminium créer ba xalaat loo xam ne mbirum defar pënu la ak koy defaree loolu yeneen ndaw ñëw xalaat leneen ñeneen ndaw ñëw xalaat leneen loolu lañ tuddee ibdaa yi dafa ñuróog rek baatu bidaa dafa ñuróog moom waaw tabarkal waaye ndaw ñi nga xam ne tàggat nañ leen ci wàllu googu ba ñu man ko ibdaa yi te mooy fexee samp dara fexe samp dara loola muy samp mu liggéey ca penc mu liggéey ci foofu it bépp ministère boo xam ne bii da gis koo xam ne mi ngi jéem a def ibdaa yi mi ngi jéem a créer dara boo ko gàllankooree danga nga am bakkaaru société bakkaaru penc waaw ndaw loo xam ne dafa bëgg a def ibdaa yi wala ibdaa bu ñetteel bi ci ñett yooyu ma doon wax mooy jihaad yi luy jihaad yi mooy ndaw loo xam dañ koy tàggat ba yaramam bi tayaloon sawar ñu tàggat ko ba xelam mi nëxoon teey ñu tàggat ko ba ay nelawam néew ñu tàggat ko ba péncam jag jaral na ko jox ci astan astuut ay xalaatam loolu lu amam solo la nanu dem ci alquranul karim borom bi subhanahu wa taala mi ngi junj lu mel noonu ci laay ju am solo wala ay laay yu am solo ca suuratu tawba borom bi daa wax ne inna allah stara min al mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqaatiluna fi sabilillah fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waadan alayhi xaqa fi tawra wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allah fastabshiru bi bay'ikum alladi baaya'tum bi wa dalika huwa alfawzu alazim ma nga ca taw ba aaya fukk ak benn borom bi daa wax ne jënd na ci mu'minuuna yi seen bakkan moomatuñu seen bakkan moomatuñu seen alal seen bakkan léegi yàllaa ko moom seen alal léegi yàllaa ko moom allahu akbar seen bakkan jaay nañ ko yàlla seen alal jaay nañ ko yàlla mu yàlla loo leen di faye ku joxe bakkan joxe alal loo koy faye mu nit bi anna lahumul janna aljanna laa leen di faye ginnaaw mënuñu ñàkk jóg àdduna ñu denc leen ci biir suuf la ma leen di fay mooy aljanna waaw ñoom lu ñu la defal yu xaaciluuna fi sabilillah waaw dañoo kër kër yi dañoo xeex ci yoonu yàlla lan mooy yoonu yàlla mooy pénc mi jag lan mooy yoonu yàlla mooy pénc bi jag rey jóg fi waaw agression yi jóg fi waaw lëndamaay gi jóg fi xordab bi yi jóg fi pëcc xoogeeg yàqante gi jóg fi fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waaw bu àggee ci seen bakkan des ca yàlla mu ne seen bakkan des ca ndax yàlla jaral na leen ko ne ci pénc mi rek ndax bëgg pénc mi jag ndeysaan la ma sama bàjjan daan wax ndeysaan meer soxna Jóob yaayi Moodu yal ko yàlla yërëm mu ne ma dama am laaj bu ma lay laaj mën ne ko waaw mu ne ma kañ ngay nelaw ndeysaan waxoon ko ci bind yi weesu mu ne ma kañ nelaw mu ne ko bàjjan àdduna amuti nelaw mu ne ma ah te nit ñi di ko def <laughs> ndeysaan mu ne ma ah te nit ñi di ko def mën ne ko nit ñi nelawuñ de mu ne ma li ñuy def nun tudd ma ne ko àdduna ñi fi nekk dañuy entraîné nelaw yaa ngi biir xabru ci tit tit sama bàjjan bàyyi ndékki la ma ne ko nelaw yaa ngi biir bàmmeel ñi ci kaw suuf ñëpp dañu entraîné fa yaqtuluuna wa yuqtaluun waadan ali xaqa yàlla mu ne loolu signé naa ko waadan alayhi xaqa signé naa ko waaw foo ko signé fi tawra document bi tudd tawra falaa ko signé document bi tudd injil signé naa ko fa document bi tudd alquran signé naa ko fa ah waaw yàlla mu ne maa wax li waadan ali xaqa fi tawra wal injil wal quran ñetti barab yëpp sunu borom ne siñe na ko fa mu yéen kan ngeen yaakaar ne moo dàq sàmm kóllëre yàlla kan ngeen ko yaakaare ñun ñëpp ñu ne yow dong lañ ko yaakaar yaa fi dàq sàmm kóllëre mu ne fastabsiru kon nag dëgg leen fastabsiru bi bay'ikum allazi baaya'tum joxante loxo geeg jaayante gi ngeen jaayanteeg moom kon bég leen bég leen baaya'tum bi wa dalika huwa alfawzul azim loolu nag mooy victoire bu mag bi mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot séminaire bi foofu la toll ak nun tabaarakallah li ci des kon mooy bu ñu yàlla mayee ñu jël suñu pause bu yi nga xam ne mooy leen vendredi samedi dimanche bu nu dellusee daal ñëw nag ci yeneen ndaje yu am solo te mooy ginnaaw séminaire bi ginnaaw jataay bi ginnaaw culture bi léegi day am nag stage waaw day am stage ndaw yi ñëw ci mbooloo mi mbooloo mi defal leen stage wala ndaw yi ñëw ma ma defal leen stage <laughs> waaw nun lay nun lay tudd incha allah stage bi nag yàlla nu ko fekkee jàmm mooy bu ñu dégloo waxtaanu fajaru vendredi ak samedi dimanche te lu pause la xaw ma pause café lay tudd xaw ma pause euh, mu roob meew bu fi imaam Abdoulaye Ndaw jege woon xam naa mu tontu ñu ci suñu accès ci yooyu daal dina am yenn yoo xam ne danañ ci defal ndaw ñi stage danañ ci defal ndaw ñi stage ndax lu waaye mën a mën a mën a jàng buñ la jàngalut nooy jàngalee doo mën a jàngale laaj ko jàngalekat yi moo tax chauffeur si nga xam ne it dañ leen jàngal dawal rek bàyyi leen ñuy dawal bokkut ak chauffeur suñu jàngal dawal ba noppi dafa leen formation wu dawal ñaar yu duñu bokk ñaar yu duñu bokk moo tax ndaw li bu fekkee jàng na ba mën a jàng dafa am stage bu ñu koy defal stage boobu nag buñ ci toppandoo alquran sunu borom moom la defaloon aadama alayhi salaam wa adam mu ne ko labbayk mu ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna àndal yaag sa jabar yi ngeen dugg aljanna def stage ñu ñoom ñaar ñu dugg aljanna def fa seen stage bu rëy ba bu ñu génnee tabaarakallahu wàcc ci kaw suuf tàmbali seen liggéey moo tax ndaw ñi it bu ñu agsee foofu fokk ñu defal leen stage suñu paree nag ñoom ñëpp ñu war a mën a dugg nag ci terrain bi eh, tabarakallahu jëriñ seenu pénc jëriñ seen réew jëriñ seen bopp ndax waxtaan ka dañuy wax ne nit warul di wax lu ma réew mi defal bu ci yem képp da nga naan lan laa defal réew mi fexeel ba defal réew mi dara suñu mbokkum daara Cheikh Ahmad Tidiane bi tey ca rajo Dunia nee na nit bu ñëwee ci péncam daa war a fexe ba kay ba ñuy bind tur yi mu dem bind ca kay baa nga tudd kuraasu taarix mu dem bind ca turam ndax ndax bu fi génnee adduna it wa zikruka ba'dal mawti umrun saani jërë ngeen jëf ci ànd bi si defeem seen rajo ak seen i forek te jataay bi ndax suñ mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi ne taxaw yor seen këyit bëgg la ne firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii di C3S c 3 nekk ci croisement de di defar ay pneu ba ak si rek taxaw ñu defaral si ñeenti pneu yaa tabaarakallahu ci diir bu gàtt gàtt gàtt yàlla yàlla defar seeni mbir